nekk ci plage yi euh, loolu rek jar na ñun chaque fois bu ñu bu ñu jaree ñu wuti moyen parce que dafa cher comme ni ngeen ko la waxee sànq dafa dafa dafa demander moyen mais moyen yi tamit du SAPCO rek moo soxla géej ak plage ñi yëngu ci yenn yi nga xam ne dañuy soxla di liggéey ci géej wala kii ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw fekk si ci combat bi ñu euh, wuti les moyens qu'il faut dooleel genre initiative pour que mbalit bi nekk ci suuf géej gi ñii ñii di plonger di ko jëli ñu mën leen jox les moyens qu'il ngir nag daal di wuyu bés bi nga xamante ni moom la ñu jagleel cet gi SAPCO daal di woo askan wi ngir ñu xeex climat gi nga xamante ni day am ci plage yi ngir nit ñi mën fi di dem di ñëw waaye timit ñëpp mën fee jëfandikoo. lu mooy loolu dañuy àddu ci wenn xibaar ñi nga xam ne ñu ngi tëkkëru taskatu xibaar yi jàpp ne daal ñuy bind ak bataaxal jëbal ko ñu ci réew mi que Diomaye Faye ñeel jafe-jafe nga xam ne nii ëttu taskatu xibaar yi ñu ngi koy jànkonteel ci bataaxal nag ñu ngi koy euh, xamle nag ne euh, taskatu xibaar yi daanaka ci secteur bu euh, am solo la ñu nekk waaye néew doole lool ba faaw nag ñu daal di leen jàppale jox nañ ko itam yenn ci ay tegtal yoo xam ne moom moo mën a doon solution gannaaw bu mu ndajeek convention des jeunes reporters du Sénégal Bassirou ay fay dafa daal di ñaax rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy patronat de presse bi rek ngir rek ñu daal di ut solution ba crise yi ñuy dund ñu daal di koy weesu. j'attends qu'il m'écrive pour me dire voilà les pistes de solution qu'on veut vous proposer et on va être inventif. bravo pour l'investissement et pour la création d'emplois te lu ci état mën a def dina leen soutenir ci loolu. boobule patronat nag mel ni rek ku xaarul lu yàgg ngir daal di tontu gannaaw buñ bindee benn lettre ouverte ñu ngi ci xamle ni dugaloon nañ ay audience yu bëri yi premier mai ak 6 juin bi ñu weesu ngir rek ñu daal di trouver solution si li ni mel te noonee la CDEPS daal di leeral ni entreprise de presse yi jamono ji Sénégal ñu ngi dund lu méttee métti te lu moyul ñu bari dañoo daal di nar a tëj ndaxte jamono ji metti na rek ñu sàmmook seen liggéey yu nga xamante ne ni amoon nañ kook liggéeykat yi institution médicale yeeg sociale yi fournisseurs yi ak yenn partenaires yi li ni mel buñ ci jugul dafa daal di nar a jaxase seen liggéey te boo moyul métier tasub xibaar dina daal di wàccu yoonam ba tey buñ sukkandikoo si njiitu réew mi gannaaw ndaje bu mu amoon ak convention des jeunes reporters yi moom nag mu ngi doon xamle ni jamono ji ñëpp a war a sàmmoog seen fayum impôt ndax daanaka secteur yëpp a daal di yem ku ci nekk ci ñoom dafa war a rek daal di def lu ko yoon sant. après boo xam ne la c'est un secteur sensible d'accord j'entends mais les cliniques lan moo leen gën a sensible mais les cliniques dañuy fay impôt est-ce que pour autant ñoom nee nañ non nañu nañu effacer suñu dette fiscale parce que c'est un domaine sensible ban domaine moo sensible parce que a le micro. presse sénégalaise bi dafa nekk li nga xamante ni daanaka alalu ñëpp la ñëpp si daal di njëriñu muy politicien bi économie beeg lu ne presse ñëpp la fi daal di nekkal bu ñu sukkandikoo ba tey ci patronat de la presse bi lee te buñ ci taxawul nu mu waree fayit it la nar a jëm tax na ba ñoom ñi leen daal di proposer ci seen lettre ouverte boobu ay plan d'action lu ci mel ni accès à l'information benn loi ci lépp lu jëm ci wàllum publicité fiscalité ak li ni mel. donc le dernier effacement c'est c'est la dernière fois la loi. ci tënk ca pencum ndawi réew ma jàppale ne daal ndaw ya ña ngay fexe dugalub loi woo xam ne tax ba ñu càmbaraat règlement intérieur bi nga xam ne moo tënk pencum ndawi réew ma indi ci ay coppite na ko ilmaana jorun wa sàkkwe parti PDS ne daal ñoom kenn demal ñu des si yëf yi bëgg nañ ca dugal loxo ndax ñoom ñee seen mbëbët moo di jorun gu njëkk gi du Ousmane Sonko mën a ñëw wax mbëbët gi nga xam ne ni am nañ ko waaye itam pexe ñu fas yéene lal yoree ko réew mi fii ak juróomi at yi di ñëw ñu di ko woowee déclaration de politique générale loolee nag PDS jàpp ne dafa bokk si euh, juróom fukk ak juróomeeli ponk suñu chartu ndeyu réew ba tax nag faw ñu daal di ci euh, sàmmonte ca noonu nag nee nañu ngir ñu mën cee àgg euh, faw nag député yi nekk ci assemblée nationale ñoom ñu fexe rek ba loolee nga xam ne mooy par règlement bi ñu daal di koy tëggaat lu ko mooy rek daañu fi indi ab crise institutionnelle boo xam ne mën naa ñàkk. kuréelu politique yi di APR jàppale ne mënu ko ñëw wan naa su ba tey njiital ko ma mel bu ma Massar di euh, Bilal euh, mi nga xam ne ni moo di Bilal Diatta muy fësal ne amoon na rek lu mu jëflante woon ak itam kii fi nekkoon première dame bu Sénégal ci yenn ci ay mbir yoo xam ne daanaka bëggoon na ñu daal cee liggéey. ab bataaxal la ñu daal di génn daal di koy euh, fësal euh, di ci xamal nag askanu Sénégal naka noonu àddina wërngal këpp seen taxawaay ci li nga xam ne moom mooy song yi ñuy song Macky Sall ak euh, waa këram ñoom nag lañu ñu sàkku mooy procureur daal di autosaisir si li nga xam ne moom la Bilal def. Bilal Diatta dafa wàcc yoon lépp li nga xamante ne nag xel mënees na kaa nangu daka wàcc loole la secrétaire exécutif national bu APR daa di xamle gannaaw ba maire bu Kër masar Sud daa di xamle ni kii di Macky Sall dafa bëggoon a faat Ousmane ba mu nekk opposant bureau politique bu APR di naqaru lu ni mel jàpp ni diffamation la mën na am jeexi jeexital ci stabilité dëkk bi bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag. procureur de la république dafa war a ubbi gaaw-gaaw l'enquête ci ab këyit bi nga xamante ne fësal nañ ko secrétaire exécutif national bu APR di ñaax rek ba njiit yi ñu daal di ci àddu wa ilaa ñoom dinañ ko fajal seen bopp ndaxte duñu bàyyi benn yoon kenn di gàkkal li fi Macky Sall liggéey moo taxit ñuy daal di woo sénégalais yi ak opinion international bi ñu gën a bàyyi xel ci yi nga xamante ne nag moom mooy kàddu yi jib ci réseau sociaux yi addu jëmale ci weneen ndaje woo xam ne wàllum comme lay soxal ne la ñaar fukki ak édition bu am leen ko ci province jàppale ne ñu tëree ma woon di Macky Sall am nay kàddu yu mu jubale jël nag denduk Afrique yan lañ war a taxawoo ba di sukkaliku ci wàllum koom jàpp na rek moo leen mën a dimbali ngir rek yéen ci ay jafe yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteel ñu mën ko woon ginnaaw. bokk na ci yooyu li kàddu solos réew yi daal di euh, déggoo moom njiitu réew mi ma woon di Macky Sall nag euh, doon euh, wax itam. ci li nga xam ne moom mooy euh, immigration clandestine lépp nag bokk ci li nga xam ne moom la yor ci ndomba tànk te France daal di ko ko euh, dénk te mooy envoyé spécial du pacte de Paris euh, pour les peuples et la planète ñu ànd ceeg Matar Bari yi ki fi nekkoon njiiti réew bu Sénégal teewe woon na ñaar fukk ak ñeenteelu édition rencontre économique foofee ci accès en province Macky Sall dellu si na bu baax ci mbirum immigration clandestine mu ngi fësal bu baax naqarama ci ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan. nous sommes tous. li xew jamono ji euh, mën naa wax ni ñun ñëpp la daal di yi ay ndaw di jël gaal gi di génn réew mi di dem ñi ëpp si ñoom di si ñàkk seen i bakkan nekkoon naa njiiti réew dañuy gis sax ñi nga xamante ni nii am nañ seen i liggéey dañ ko fay daal di bàyyi dem jël gaal gi ngir rek daal di dem Europe. Macky Sall dellu si na itam ci jéego yi nga xam ne teg nañ ko ngir dakkal phénomène boobu nga xam ne mu ngi gën a woy ci nekkul lu yomb benn yoon ñu ngi def luñ mën ngir rek daal di xeex li ni mel ñu ngi ciy liggéey di ci boolewaale ñi nga xamante ne ñi ñoom ñooy marine nationale bi gendarmerie territoriale bi teg si tamit dañuy daal di financer ay ndaw ngir rek ñu daal di mën a amal seen bopp. ci ndaje boobu nag moom mi nga xam ne moo nekk envoyé spécial pacte de Paris pour les peuples et la planète duut na baaraam ci solo Afrique mën a jot ci ay financement ngir mën a suqaliku. ñoo ngi amal ay jéego yu bëree bëri fii ci Afrique. dafa daal di soxla ndimbal ngir rek mu daal di mënal boppam assurer li nga xamante ne ni moom mooy euh, développement am ni mel bu daal di am euh, jàpp naa ni àdduna bi yëpp moo si daal di njëriñu. loolee sax bokk na ci mission yi nga xam ne am na ko ci kuréel boobu maanaam fexe ba lëkkaloo am ci diggante réew yi rawatina ci diggante noor bi ak sud bi. man li may indi mooy kàddu gi ci wàllum politique. mu war a nekk nag kàddu koo xam ne ci sud bi la jógee war a ëndaale itam kàddu képp koo xam ne yaa ngi ci sud bi li suñu mbëbët mooy fexe ba dialogue bi am ci diggante réew yi nga xam ni multilatéralisme bi ñuy woote dina nekk lu dëggu. ki fi nekkoon jiitu réew nag jàpp na ni Afrique waratul nekk reservoir ressource naturelle boo xam ne réewu tubaab yi dañuy ñëw rek di tibb li mu soxla rek mooy ay financement ngir mën a suqaliku. xibaar yi dañuy yóbbu ci diwaanu ko luga waxtaanee ci lekk la nga xam ne amaloon lañu fa ci ndaje moo di xeexa xoqatal yi nga xam ne ñu ngi koy def eh, jigéen ñi waaye tam teel a sëy gi da di gàllankoor ñu ci bëri nag dem bay bàyyi rek l'école yi nga xam ne daanaka sàkkooyu xam-xam la njëriñu bari ci ñoom. ca boobu lépp ndaje nag daanaka taxaw nañu bu baax a baax si àq ak yelleefu tu tànk yi waaye itam nees mën a def rek ba gën a euh, dooleel xale yu jigéen yi ngir bu ëllëgee ñu doon ay euh, mag yoo xam ne askan wi da leen di jox euh, gëdd ñu teewlu ay kàddu ndey Fatou Ndiaye. ça fait ay 5 4 mois noo ngeen taxaw taxaw bi mooy defal leen ay formation parce que pour nga mën a def dara il faut nga am renforcement de il faut nga xam. parce que boo bëggee def te xamoo maanaam na ngay defee day sooxee il faut nga xam xam-xam boobu doole nañ seen xam-xam doole nañ seen xam seen xam-xam si domaine sauvegarde comment protéger les enfants doole seen xam-xam si domaine genre nan la ñuy def ak jigéen am même sens maanaam li ñuy seen àdduna maanaam li ni fiy bëgg nu am même sens bi doole doole nañ seen xam-xam si plaidoyer nan la ñu mën a jàkkoo ak askan bi wax ak askan bi mën na doole nañ seen xam-xam si leadership parce que ay leader la ñuy doon. de demain doole nañ seen xam-xam si domaine lu bare bare du ñu yem fii comme ni ma ko waxee on va du ñu continuer du ñu continuer di leen accompagner. jaajëfal Gora Mbodj mi nga xam ne moo taataan kàddu yooyu lee addu jëmale lañ leen jundoon ca bopp bi jox benn fukkeel ak juróom lu ndaje bu CEDEAO amal nañ ko ni ki dem ba ci diwaanu Abuja jàpp ne mbir ma xewet jamono ju méttee métti ndax nguur gi nga xam ne daanaka militaires yi ñoo ngi ko jiitee ci diwaanu Niger Burkina Faso ba ci Mali dañoo bolontoo daanaka am tëgg seen ak kuréel gu euh, suñu sukkandikoo nag euh, si euh, ki nga xam ne moom mooy Mouhamadou Choibou Maïga nekk. ab euh, doctorant en relation internationales di ab chercheur itam euh, li nga xam ne moom mooy génn bi ñetti réew yooyu euh, génn ci li nga xam ne moom mooy CEDEAO mën na am njeexital ci terrorisme bi nga xam ne moom la ñuy xeex ñu teewlu ay kàddoom. ci boobu leen ndaje njiitalu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal di ñëwaat ci liy raam jëm ci ñag bi bu ñu sukkandikoo ci moom nag jàmm ak salaam ak jàppandal gi yàggal lalu ci diggante dëkk yu fare fii ci Afrique sowu jant dañ ko war a biral ngir yëf yi daal di yomb nag faaw ñu daal di ci boole ay coppite yu yees rawatina ci wàllum koom wàllum yoon ak yoonal itam wàllum kaaraangi Euh, le président de la république du Sénégal. njiitub réew mu Sénégal sàkku na rek ñu saytuwaat CEDEAO dal di ko xaymawaat méngale kook jëmmi jamono bu ko defee rek biti réew dootuñ am loxo ci moom loolu nag yaakaar naa ne askanu Afrique yëpp ñoom ñu ngi naqarlu sax yenn ci dogal yi nga xam ne ñu ngi koy jël ñu njortu ne waa biti réew ñu ngi ci. et cetera. ñu yàgg koo jooytu fii ci Afrique maanaam ñu jël dogal yi nga xamante ne nag ñi bàyyi ko ci tugal ñoo ci dugal seen yoxo loole waral ñu daal di fi jëmal ab confédération des états du am Mali Burkina Faso ak Niger daal di beru ne dañuy demal seen bopp mënees naa nekk as góom ci panafricanisme ki ko xamle di njiitalu réew mi Bassirou Diomaye Faye. du coup quand waaw bu fekkee nag am na ñaar ci ay say moom fii ci Afrique sowu jant dafa dafay métti ngir rek ñu janook sas yi nga xam ne ci wàllu kaaraange la. bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi nag Sénégal dina woy di taxaw ñi mu bokkal lël bi soxal nag protocole additionnel bi ci wàllum démocratie ak bon gouvernance dinañ ko daal di gën a ñoŋal njiital réew mi di ci porox ndool rek di woote ba lépp lu soxal kaaraangi ñu daal di ci taxaw daal di ci waxtaan. ndaxte ci jamonoy jàmm ci lañ gën a ittewoo lii di waxtaan. jërëjëf Oumar Thiam ci leeral kii dañuy àddu ci ponk gu mujj gi dañu la téye kay. seen ak jàmm yéen kaay bëri dikkaat nañ mu njëkk jeexital gu bon gi nga xam moom la taw am ba na am na jafe-jafe ci ah, dëkk bi yëpp ak li xam ne ay gox ya gox yi vox populi ne daal taw yu njëkk moo am waame gu njëkk ba tax na yéen kaay bi nee na ndox mi bari na la mu yàq bari na BRT bi sax dafa taxawoon rawatina waa Dakar dem dikk jëruñ dénk wàllum assainissement ak ndox moom nag mu ngeen a cëpp ca Kaolack ngir a xool wàllu woowee ba tey ah, la tribune daal duo Jomaay Sonko bi ñoom kat ñi ngi jàmbaaloog seen waame gu njëkk fële ca Rufisque Kër Massar Tivaouane Peulh Malika ak Touba ak la ko daal dafa laal di wër ndomba li xam koy mooy dëkk bi ba tey ne daal ndox mi nag moom indi jafe-jafe ca Kaolack quartier kat na fi ci Ndakaaru Kaolack Touba Ndar moom waxi no ba tax na ndox ma daal dafa ëppi loxo ba tey fii la ba tey bés bi la ba tax na askan yu yuxu wàllu taw yu metti yoo xam ne amoon na ndiki dibee te gaaw loolu ca Kaolack ak daanaka ñoo ko gën a méttile waaye tam tamit kenn nga xam ne na da am ñu def jëf yuqu ñuur ba tax na dañ ko war a saytu ci wàllu woowee bi ñu amal seetal suñu réew ca Ndar ne daal askan wi génn nañu ñoom ñëpp bëgg daal maintenir la décadence maanaam fexe kat ba nga xam ne mooy gox-goxaan yi mën a set ba tey ne bu yaatu seq na ko jawriñ ji di Mansour Faye moo njiit bokk moomeel bi nekkoon fi ancien ministre ci nguuru Macky Sall ne daal ci danger bu di sukkandikoo ci l'observateur moom Mansour Faye nee na daal kenn xamul kan mooy njiit réew mi ba tey mu yokk ci ne yi nga xam mooy xoxotal tukkee ci uh, Sonko loolee ragalu ko ndax ji fi xale la ba tey ginnaaw loolee kat yéen kaay di kat nañ ci confédération mi nga xam moo dajale ay membres état alliance des états du Sahel annonce bi nag fësal na ko Mali Burkina Faso ak Niger génn nañ ci CEDEAO gis nañ kat Sud Quotidien mu ngay tëgg gémmiñam yuuxu ne daal loolee kat baaxul ndax Diomaye Faye boppam nee na dañoo war def lépp loo xam ne kat rakk looñu war a toog ci CEDEAO ba tey ci Le Quotidien nee na daal génn bu Niger Burkina Faso loolee day faagaagal li nga xam ne CEDEAO daanaka ne kat déclaration ba na ñu a rafetlu moom ma ngay insisté ne kat dañoo fexe ba ñetti dëkk yooyu génne daal ñu biir toog ci dëkk boobee ba tey toog boobee daal tax na jànn ci nga xam ne mooy jomaay enquête moo ko wax ne kat dañoo bëgg daal mu nekk wàllum sapeur pompier maanaam mu nekk médiateur fexe daal ba li nga xam kat mooy euh, jàmm di kat bi CEDEAO moom kat lañ ko daal di euh, sas fexe ñoom kat ñu des ca yéen kaay kat di enquête di kat nañ ci wàllu wooye ne daal ba tax na fu flou artistique dëgg la maanaam daanaka sax waa front national dañoo sëngeema waa front populaire moo leen dóor France nag moom jamono ji amul majorité Bardella nee na amul guvernement boo xam mën na agir te loolee dafa ñaaw Mélenchon moom nee na Macron dafa war a génn wala kat mu xam na muy def jàngeen ngeen jëf cant ak gërëm ñel na la ma Mar Cissé mbokki jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal leen bu baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV amoon mbég te janoo ci ak Kajoor Cissé cant ak gërëm ñel na la Suzanne ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mbokki ñi doon teewlu jotaay xibaar yi ci tënk juróom waxtu lay doon ci kàllaama nasaraan ak wolof ngeen rëcc feegoo Germaine Diouf jaa ngeen jëf